international seneinfo point net dalee nag jàmm si euh, tënku xibaar yi euh, jeudi 30 novembre 2023 dañ koy commencer rek euh, par la mission d'information bi nga xamante ne mu ngi Sénégal mission d'information de la CEDEAO présentement ñëw na Sénégal mission boobu nag ki koy diriger mooy le commissaire de la CEDEAO muy Omar Aliou Touré moom moo déployé benn équipe boo xamante ne moom moo ñëw Sénégal pour saytu li nga xamante ne mooy élection yi nga xamante ne moom moo la ñëw mu nekk mission d'information bu mucc boo xamante ne Euh, CEDEAO jël na ko pour indi ko Sénégal pour mun a nekk fii séjourner fii euh, pour quelque temps jusqu'au 3 décembre 2023 pour mun a euh, vraiment s'imprégner des affaires politiques du Sénégal pour organisation élection yooyu mun a jaar yoon donc mission boobu ki nga xamante ne moom mooy le docteur Abdel Fattah Moussa commissaire aux affaires politiques paix et sécurité de la CEDEAO moom moo ko jiite. donc ñu ñëw ci crise universitaire bi euh, ki nga xamante ne moom mooy nekk SAES e mooy le mouvement loolu mooy le syndicat autonome euh, de l' enseignement supérieur moom defa lancé woon benn mot d'ordre euh, institué ko journée morte de l'université université morte. ci jeudi bi nga xamante ne moom la ñu nekk moo d'ordre boobu grève boobu suivre na suivre nañ ko daan toutes les universités du Sénégal mais nag occasion bi nag na occasion boobu aussi SAES aussi saisir na occasion boobu pour vraiment euh, wax li nga xamante ne moom moo ko nakari euh, bi pour mu jël ay responsabilité am mais ki nga xamante ne moom mooy état bi moom mu ngi toujours mu ngi camper sur sa position nee na cours yi koy def à distance donc état bi nee na gouvernement bi nee na du décision boobu nga xamante ne jël na ko pour di mun a dispenser cours yi nga xamante ne moom la ñu jox étudiants yi à distance loolu nekk rek loo xamante ne vraiment étudiants yi ak professeurs yi nekk si kuréel boobu ñuy woowee sa SAES euh, mer nañ ci lool lool lool. ñu ñëw euh, si Kopar Express Kopar Express mooy euh, outil bi nga xamante ni moom la waa parti ex Pastef doon na def seen xaalis bi. pour mun a dérouler li nga xam ne mooy seen activité politique mais depuis quelque temps dañoo tëj euh, plateforme bu buñ ko tëjee aussi euh, membre Pastef yi aussi dañoo doon def xaalis ci seen propre compte mais léegi par compte yooyu yëpp dañ ko gelé léegi nag euh, fu mu nekk nii ñoom dañ leen nga xamante ne ñoo nekk ci parti Pastef jël nañ beneen dogal boo xamante ne bu wutee ak koppar bi ak lu ñu doon def la mooy instant bi ñu def confe def confection de bracelet bracelet bu nekk ñu jox ko ay membre ou bien ay responsable bu parti bi ñu jaayee ko ku nekk responsable bu nekk jaayee 1000 euh, francs l'unité pour mun a vraiment continuer seen activité loolu la waa PASTEF euh, décidé. ñu ñëw si candidature unique bi six candidats yi nga xamante ne moom ñoom dañoo décidé pour vraiment euh, boolool boole seen doole pour mun a nekk une candidature pour l' élection présidentielle bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal donc candidat yooyu noonu dajale na leen seen xalaat ak seen force pour mun a vraiment nekk benn si élection yi ñu dëgmal candidat yooyu nag buñ ko xaymaa mu ngi ñu ngi ñu ngi toll si juróom benn candidat ki nga xamante ne moom Babacar Diop force démocratique du Sénégal Mamadou Diop Decroix ànd jë jëf parti africain pour la démocratie et la et le socialisme Cheikh Tidiane Gadio du mouvement euh, panafricain et citoyen luy jot jot na El Hadj Ndiaye Diop taaru Sénégal. Euh, taaru Afrique mouvement pour le socialisme autogestionnaire Bouna Albouri Ndiaye rassemblement national démocratique El Hadj Ibrahima Sall parti Demain la République donc candidat yooyu nga xamante ne de toll nañ ci juróom-benn ñoo dajale wu pour mun a def candidature unique pour mun a xeex nekk benn donc euh, ñu nekk ci plateforme bu ñu tuddee progressiste euh, panafricain seen égalité seen seen égal seen égalité loolu la ñu tuddee seen bopp. ñu wéyee rek ci xibaar yi euh, ñi nga xam ne mooy les membres du F24 ñoom dañoo seen préoccupation mooy euh, transparence par rapport ak élection yi nga xam ne moom la ñu déglumal loolu moo waral euh, seen coordonnateur Mamadou Diop ak sa ay ñu ñam ñu ngi def ay stratégie yoo xamante ne vraiment pour ñu élection yi mën jaar yoon. donc ñëw ci actualité internationale fi nga xamante ne moom mooy Ouganda lañuy lañ koy doore Euh, dëkk boobu nag Uganda euh, lu toll ci euh, fukk ak juróom-ñaari nit ñàkk nañ foofu seen bàkkan ci feebar bu ñuy woowee la fièvre charbonneuse anthrax donc benn benn nit moo ko xam xamle benn responsable local moo xamle ne feebar boobu situation bi mu ngi nekk sous contrôle boo xoolee nag feebar boobu nag lu koy indi nag mooy day jóge ci mala yi mala yoo xamante ne dañuy dañuy dee am feebar bi ñu suul leen mais. dafay bactérie bi dafay du lu mot euh, dix ans léegi su ko defee nit bu ko laalee wala bu ko jegee mun na ko ko wàll donc mu nekk feebar boo xamante ne vraiment mu ngi sonal askan bi ba faat na si ay bakkan ñu ñëw rek si France France euh, ministre yi nekk foofu après bu ñu désinstallé TikTok si seen téléphone yi dañ leen ñaax aussi à ce que ñu désinstallé WhatsApp Telegram ak ñaar pour plus de sécurité dans les échanges parce que dañoo jàpp ne ñooñu dañoo nekk ay nit yoo xamante ne dañoo seen seen communication dafa war a nekk loo xamante ne dafa war a euh, jaar yoon nekk la communication boo xam ne dafa war a am confidentiel donc ñu ñaax leen à ce que ñu désinstaller application pour beaucoup plus de sécurité donc ñu ñëw ci sport sport nag bu ñu ko xoolee défection ñu ngi commencé bari ci équipe africaine yi Euh, après nag défection bi nga xamante ne moom mooy euh, euh, bu Ibrahima Koné ak bu Cheikh Doucouré si les Aigles du Mali donc ki nga xamante ne moom mooy Igratus Ganago moom si équipe nationale de du Cameroun la bokk moom tamit du bokk si Coupe d'Afrique bi nga xam ne moom la ñu dëgmal donc qualification CAN féminine la ñuy jeexale Sénégal Égypte donc dans le cadre de ces éliminatoires là de la Coupe CAN féminine Maroc 2024 l'équipe national féminine ak bu Égypte bi tey la ñu war a daje fële fële ci Thiès à 17 donc ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, protéger ah maam Moussa Cissé ñoom dañ leen di xaar tey vraiment pour ñu joxe seen kéemtalaayu kattan pour mun a vraiment gagner li nga xamante ne mooy match bi avant que ñuy xaaral la match retour. bi nga xam ne moom la ñu prévoir euh, le 5 décembre prochain ñu la ñu jaajëfal bu baax a baax si teewlu bi te li leen ñaanal ñu yendu ci jàmm